ndaje mu mel nii bu fekkente ne dafa am kuréel gu ko woote ne li ñuy woote mooy euh, ñu waxtaanee euh, nit ñi buñ leen jàngalee ba ñu amul lijjaasa ba noppi li ñee ci ñoom te yàlla def ko ci ñoom muy seeni i yëg-yëg muy seen i gis-gis nan la ñuy fexe ba loola ñu mën a jàpp ñoom ne xam-xam la ak jumtuwaay yu ñu war a jariñoo ba ci seen biir liggéey ñu am ci xereñteef goo xam ne luñ leen sant lu ne danañ ci am lu ëpp lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu yaakaar bu dee ay ndaw Sénégal ñoo ko xalaat yëkkati ko defar ko ba pare tuddee seen kuréel doxalin Africa loolu ñun dañ koy sante yàlla ndax jàngalekat euh, li mu gëm mooy nit ki bu wee bu weesoo lijaase yi muy am euh, li nga xam ne moom moom lay indi te yàlla def ko ci moom loolu boo ko yeeyee rek moom di nga am ci moom lu ëpp li ko lijaase bi di may kon loolu mooy solo su ndaje bi nga xam ne tey borom xam-xam bu ne daje na fi ak kuy wut xam-xam ak ku ku yaakaar ne soxlawul xam-xam boole ñi nekk ci nguur gi di liggéey ak ñi nga xam ne dañu war seen kër liggéeyu bopp ak ñi nga xam ne ñoo nekk di jàngal gone yi nga dajale leen ci benn barab ngir ñu waxtaanee ko loolu def naa ne ku bëgg yokkate xale yi ak ku leen bëgg jàppale rek moo koy def. Euh, maanaam tey jii fulla ji ñu am ñoom ba lii ñu mënoon ko wutal turu nasaraan wutal ko turu woo xam ne ci làkk réew mi lañ ko jëlee ñoom seen kuréel ñu tuddee ko doxalin ba pare def ci Africa wane nañ ubbi ko gu nu am waaye nag ubbi ko gu munoo ko def te amoo cëslaay ndax ku wéeruwul day yomb ba max def naa ne loolu moom man moom a gën a yëkkati ci tur wi maanaam ay ay xale la yu jàngee bitim réew ak yu jàngee fii waaye tey wane nañ ne ñoom rusu ñoo tuddee seen kuréel pour woo xam ne dafay jóge ci làkku réew mi te loolu nag defe naa ne foofu la xale yi war a taxaw tey euh, man loolu moom yëg-yëg boobu laa ci gën a am doxalin nag dafa am solo ndax ci ñun euh, nit ki jox ko am na solo waaye joxin wi moo ëpp solo xam nga dañuy faral di wax ne la euh, lekk li muy neex neex buñ la leen ndab te taajiin wa rafetul doo ko lekk kon doxalin bi moom moo ëpp solo am diplôme baax na amee lijaasa sa baax na waaye nan ngay tëggee sa doxalin ba foo demee ñu naw la bool ba loo liggéey am ci ndam loolu moom moo ëpp solo ci ci ci li ñu def xale yi nañ ci bàyyi xel mag yi nañ ci bàyyi xel turu tubaab yi baax na lool waaye nag tudd moom del tudd loo xam ne la muy tekki